bénéfice dafa bëri am na koo xam ni xam nga nee nañu euh, lu lu lu am rek suñu borom la mais ñu ne yàlla yàlla bëyal sa tool donc bu fekkente ni am na ku feebar ci benn béréb mu war a traverser benn xur mënul traverser parce que taw nga war a def un détour de de de vingt kilomètres mais balaa nga àgg ci docteur bi kooku yàlla mën na def mu faatu. te mënoon nañu ko yóbbu à temps parce que yàlla mbay may ñu moyen pour ñu def bu ñu ko deful ci ñun la donc président yi yëlee ñu ci bare dañu amuloon gis-gis boobu donc loolu moo tax ñu am retard président bëgg rattraper retard boobu parce que def ni ñu nekk ci àll bi ci dëkk bi la bokk am nañu droit comme ñëpp président nee na mënuñu jël xaalis bi yëpp di ko yemale ci fonctionnaire yi comme comme bi il faut mu dem aussi ci ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci dëkku àll yi donc loolu yaakaar naa gis-gis te gis-gis boobu incha allah dinañu comprendre au fire et à mesure que mën na antu parce que nee naa piste bu amee électricité ñëpp ko bëgg dafa war a ñëw woo ngeen sànq ni PUDC commencé na fi àggul fànde pour ça bu ma sañoon ñu dem fépp balaa ñu àgg fànde dinaa mën a wax sama waa dëkk ma ne leen mënu leen am lépp kii bu amee lii kii am lii loolu bu ñu ko comprendre dinañu mën a loolu mooy ànd mais ànd bëgg ak kii moo lépp loolu du sotti il faut que mu am un de partage il faut ñu mën a séddoo maire am na loo xam ne bu amee sa ko mais nga xam ni dafa àgg parce que tout simplement am ak chance mu àgg foofu mais bul wax ni ah dañoo jox daw dañoo jox Moussa tey joxuñu ma donc bu ñu ko gisee noonu de Sénégal dafa yaatoo te président dafa bëgg liggéey Sénégal yëpp secrétaire général wax na ko léegi dem nañ ci dëkku àll yoo xam ni mais ñooñu xamuñu Fulaadu par exemple boo demee fi Medina Yoro Fula c' est un département amul benn maître bu doon département la lëm département la boobu ma laay commune amul benn maître bu doon dem nañu foofu barki démb yaakaar naa gis ngeen image yi bois bi ñuy sàcc foofu président yónnee yóbbu euh, envoyé ñu foofu pour que ñu ñu ñu liggéey pour euh, loolu dàq donc pour wax ni liggéey bi moo yàq mais lu jàggeen président taxawul pour que liggéey yooyu ñu mën a avancer. Gueye, maire de la commune de Fadé. Il y a Thomas Cissé, le maire de la commune de Koumoussa. Il y a Babou le maire de la commune de Faba. Il y a Taladia, le maire de la commune de Dianaba. Il y a Seka, le maire de la commune la mouche des maîtres de parents sont là. Et nous de les recevoir ici, dans ma commune, une commune que je dirige depuis 2002. Et l'initiative de cette présence ici, c'est euh, travailler pour l'intérêt du parti, parler avec les militants. surtout tous ceux qui peuvent amener des résultats au profit de la PR, au profit du président de la République. Certes, beaucoup d'entre vous étaient dans, cette, dans, dans notre parti. Mais aujourd'hui, presque les neuf maires départementaux sont au aujourd'hui dans la paix. On a eu l'initiative de faire une tournée pour recevoir les militants qui sont à la base, parler avec eux devant les responsables, devant le coordonnateur. Précisément, cette tournée aujourd'hui, c'est à Boubacar. d'autres ont été évoqués. Élargir le parti, massifier le parti, je vais bien citer l'essentiel, l'objectif principal de cette plateforme. Nous saluons tous les maires qui ont pris la parole et chaque maire qui la parole s'est parlé au profit de la paix, magnifier, élargir le parti dans le, dans le

Quand on dit les donneurs des populations, les donneurs principaux de ces populations, c'est l'éducation rurale. L'éducation rurale, avec le PUDC, certains fonds villages ont été ciblés et nous attendons. Et c'est parmi tout, cela se dans les jours à venir. Il les prix de production. Les prix de production dans communes, on est satisfait. Parce que je peux vous assurer que partout dans communes, il y a des petites productions huit kilomètres à l'intérieur de cette zone donc euh, ça aussi c'est très intéressant pour les PUDC nous l'avons dit les sept zones de ma commune il a du matériel pour alléger les travaux des femmes il y a des batteuses il y a des Et ce sont des instruments qui intéressent les femmes. Donc je peux dire que aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on est satisfait à 100%, mais quand même, on est vraiment on est content. La dynamique de la victoire